ngir waajal Toussaint di fête bi ñu jagleel way dawlu yi kercen yi dañuy seetal sëg yi. chaque fois ñu wa suñu waajee fête Toussaint madame yaa la fête de et la fête de morts dañuy woo xale yi pour ñu seetal béréb bi ndax ay nit ñu nekkoon ak ñun suñu maam yi suñu doom yi. ah fii lañu tëdd alors balaa ñu di euh, defal leen feet bi war nañ ko nettoyer seetal ko pour que mu nekk béréb bu neexe ñaan waaw loolu moo tax ñuy woo xale yi donc su setee euh, la fête bésu feetu Toussaint bi dinañu jàng mes ci ñaar secteurs yi à 11 heures Bel Air à 11h Saint-Lazare à 11h. muy activité boo xam ne moom Pascal Boucar Dione di def fukki at mu ngi nii. maa ngi jël retraite yàgg naa ko parce que su man waa Thiès laa waa village laa daan naa béy tomb suñu tomb yi cimetière yi mais bi ma commencé liggéey aw moon jot pour def ko bi mu jëlee retraite laa ne voilà xaaral ma delloo yàlla loo xam ne mën ma koon def ci temps bi may liggéey donc depuis 2010 maa ngi ci. seetal sëg yi di jëf ju am solo ndax lépp la la rek. ñun ñii di dund pour man ku koy def rek sa bopp nga ko defal parce que bës di nga leen fekki te kuy dem da ngay ñaan yàlla tam ëllëg ñu defar sa bàmmeel donc euh, pour man man ni may gisee toujours dama naan loo def ci ñii rek sa bopp nga ko defal euh, noonu laa ko gisee. bis nag saa yu ñëwee seeni mbokki jullit dañ ciy jàpp bu baax a baax ci liggéey bi ñuy ñaan rek képp koo xam ne bonne volonté nga nga jàppale leen si yu mel ni ndox. ak yu ni soo duggee ci biir doo doo soo duggee ci biir doo xam ne ndax kii chrétien la wala musulman la Sénégal moo bindoo noonu lépp lu ñuy sumb ci mbiru yàlla ñëpp ci ñëpp ciy jàpp te soo duggee ci biir nga xam ne xale yi bare nañ trop tubarkal la dimanche itam noonu lay mel nag lu ñu leen di jàppale mooy dafa leen ndox glace ak yooyu dafa leen sandwich su ñu toogee ba waxtu 14 heures 15 heures ñu jox leen sandwich ñu lekk loolu daal la ñuy jëm moo tax souvent damay damay envoyé ay demande ci ñi euh, ñi ñi ñi ñu yéene euh, ñi gëm yàlla ñoo dimbali ñu tuuti pour lu ñuy jox xale yi. te ci suba la liggéey bi tàmbali ca cimetière Saint-Lazare bu Béthanie gannaaw ba ñu setalee ba noppi cimetière yi ca Bel Air fan yi weesu ay ndaw chrétien ak jullit ñoo ngi ci liggéey bi muy lenn ci xeetu jaamu sunu boroom ci kàddu ñi ñu fa fekk.